ginnaaw ñetti fan yoo xam ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir amal na ko ci kaw Kaolack ci ak ngan sëriñ bi nag bàyyeekoo na fi ci ajuma ji dëppook le 31 janvier 2020 ngir dem ci dëkk bu sell ba di poroxaan ngir waajal màggaluk soxna jaara gi Serigne Mountakha Mbacké Bachir bi muy agsi ci diwaanu poroxaan fekk na mboolem taalibe yi ànd ko kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi waaj ngir tertu gan gu tedd gi nga xamante ni moo ñëw ci dëkk bu sell bi mboolem kilifa yi nga xamante ni jiitu si woon nañ fi sëriñ bi moo xam sëriñ Isaaxa Mbàkke moom sëriñ basiru ak sëriñ Fàllu moom sëriñ basiru ñoom ñëpp di rakk ci sëriñ bi ñu jiitu si ko fi ngir xaar ko ànd nañ kook mbooleem yeneen kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ak mbooleem taalibe yi ngir tertu sëriñ bi sëriñ bi nag bi muy ñëw ànd mu nekk ki nga xamante ni saa su ne day taxaw temm ci mboolem liggéey bi nga xamante ni Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir mi ngi ci di ko ci jàppale bu baax a baax. mboolem taalibe yi naw ko tey di ko roy ci Pastef gi nga xam ne saa su ne mu koy wane ci liggéey bi muy sëriñ Moussa Nawel moom ànd na ak mboolem ñi nga xam ne ñoom it ay jëwriñ lañ ak ndongoy tarbiya yi nga xam ne dañuy jàppale Serigne bi ci liggéey bi. ñu ñëw fii ci doonu poroxaan ngir ànd ak xalif général des mourides sëriñ bi nag fi lay nekk ba keroog ñuy màggal màggalug soxna jaara gi wajatukal yawma ya ramaanu multajinyan fawsi bima situsi dunyaaka ya allah anta rahim rasi أجا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري ملاسي أجا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله